mbokki daara ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu di ziyaara képp ku ne ci groupe bi di njëlbeenoo sant yàlla azza wa jal di julli ci yonantam bi alayhi wa ala wa sahbihi wa sallam ginnaaw loolu ñu indi ay leeral ci jëf ji nga xam ne mooy jëfi chiici raatibi bi tudd Moussa Niang ak ñi mel ni moom leeral yi nag dana ko wayaatu tuuti ndax dañuy fàttali lu mënta ñàkk la xëy na am na nañu xam waaye am nañu aajowoo xam am nañu aajowoo fàttali moo tax danañ ko def ci ñetti jotaay buñ noppee ci jotaay bi ci kàttanu yàlla ci bëccëg bi wala ci guddi gi buñ amee jot ak jàmm incha allah dañ ñoo def beneen jotaay bi bu ñu ko yàlla tawfiix laa tey ñu def ba ca topp doonte nag waxam gi li muy bari bari bari bari li ma ci déglu ëppul trente secondes benn audioom laa laal dégg mu ne sëriñu Souleymane Badiane commencé di wax foofa laa ci yem moo tax la muy wax du ma ca wax sama yoon nekkut ci euh, fii may bëgg a waxee ci laa bëgg ñëw ngóor si Moussa Niang waxoon naa ko ko démb ñun benn sëriñ lañu am boo xam ne ku ñu xam xamee ñu ko kon boole na sa sëriñ moo wax nangam te nangam jooja nekkul ci ay taalifam du waxam loola mooy waxi kuy wax lu dul dëgg waaye mooy waxi kuy tooñ di askane nit loo xam ne yoonam nekku ca wax ja nag bu dee ñaaw na ak lu mu ñaaw ñaaw loolu lañuy ñuy xaar loolu la ñuy séntu ci moom Moussa ñag ñii lam fi waxoon Sayyidna Abu Hurayra ak bam ko waxee nañ defoon ak moom def ko ñi mel ni moom waxoon fi wax yu bon sos fi ay sos jëmee ci Sayyidna Abu Hurayra loolu ñi ngi fi fekkoon kenn fàttiwu ko lii mbir tey mbir mooy mbokk yi dafa am benn mbind mu dugg ci groupe bi ma ñëw teg ci sama loxo di laajte kan moo bind mbind mi donte mbind mi dafa yitteel benn école bu mag benn jaamia boo xam ne aalami yàlla mi yëngu ci réew yu bari ci àdduna waaye fukki xët la yoo xam dama koo jàng gis ci ñaar fukki yàq di laajte kan moo bind mi xanaa ab taalib buy jàng noppeegu la war doon wala bu dee ab ustaaz la buy jàngale ci jaamia wala kuy idaara ab jaamia lii musiba mu rëy la ndax tolluwaayu mbind mi suufe na lool mbokk mi wala ngóor si musa Niang ñëw bind ay kàddoom jëmee ci man yoo xam ne mën nañ koo tënk ci ñetti baat benn nee dama yor bëtu mbañeel ñaar dama ñàkk kerta doon nam ko bindee baaxul waaye loolu la bëggoon a bind ñett dama doon ab noon bu bir danga ko faxamu tuuti nag ndax bu dee moom daa jàngee ci jaami'a boobu ba génnee ka yaakaar ne am na xam-xam ñu wan ko ne ña doon jàngal day wala ñëyi def sa jaami'a day bu fekkee lii mooy seen tolluwaay ci luxa lii mooy seen tolluwaay ci xam-xam dëgg-dëgg doyet na waaye tolluwaay boobu it feeñ na ci koo xam ne nee na jàng na ba génn barki démb ak démb ak it diplôme waaye bëgg a bind benn jumla benn jumla mënu koo bind mu wér eh, bi bindee loolu nag loola laa ñëwaatoon di ko ko leeralal xamal ko ne ñàkk kersa eh, bëtu mbañeel ak noonu gu bir boo bëggee xam ku meloo melokaan yii am na koo xam ne dafa bind ab téere ne day jàngale lislaam tuddee ko kitaabu tahaara ak mooy law euh, ba muy wax ci jëmm yu sobewu yi bay wax euh, joxe ay misaal tudd ay tur tur yu màgg yu ñu xam ci diine kii bind kitaabu tahaara bi al Xumayni Xumayni mi nga xam ne sénégalais yu bari miin nañ turam dégg nañ ak njàmbaaram ñu bari dañoo judd màgg ci naw ko fonk ko wormaal ko ak lu a xew rek ku may ni moomu moo bind ci téereem tudd sayyidatna Aïcha radiallahu anha bokk ci ummahatul muminin euh, bokk ci ñi gën ci waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa gën cee màgg euh, tuuma daloon ci kawam alquran wàcc ci aaya yu bari setal ko jox ko ay melokaan yu baax seedal ko ak gëm yàlla seedal ko melokaan yu baax yi ñuy seedal jigéen ju mas a baax ju ne ci kaw suuf waaye li alquran wàccaat yemul ci sayyidatuna Aïcha jëm ci mbooleem ummahatul muminin ak charte yeleen yàlla chartoon tànn loo leen ne leen bu ngeen bëggee ab daaral aaxira ngeen def ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ngeen bëggee aduna bu ngeen tànnee aduna tàqali ak moom ñoom ñëpp ñu tànn ak daarul axira moo tax da ngay gis borom xam-xam yu mag yoo xam ne ci shia yi lañ bokku dañuy wax ne ummahatul muminin dal ci aaya boobu yàlla laabal na leen setal na leen kenn sañu la wax ci ñoom ak sabaan ànd ak loolu nag li ëpp ci shia yi ñaawteef wañu tuumaaloon sayyidatna aïsha ba alquran wàcc setal ko ñoom dañuy continuer di dëggal loolu am sax ñu ci bind téere démb dugal nañ ci téere bi koo xam ne day saxal ne sayyidatna Aïcha radiyallahu anha loolu ñu ko tuumaaloon lu dëggu la lu mën a nekk la waaye yàgg na maa wax ne xam ngeen ne xabdul qas ku yàqu deru nit ci lislaam na ko lislaam bi gët ne ni ko alquran jàngale ko mooy dañ koy caw juróom ñett fukki yar moo tax bëri na kuy tuumaal sayyidatuna Aïcha yàlla xalaat ko muy caw boppam ñoom ñooy xewle xew-xew boo xam ne ñooy tuur seen deret ñooy dóor seen bopp xamuñu leen ko yóbbee dëgg dëgg dëgg waaye man maa ngi njort lool ne tuuti la ci xalkande joo xam ne yàlla xalak na ko ci wax ju bon joo xam ne ñu ngi koy waxal sayyidatuna Aïcha di ko a saxaabi yi a anhum ajmain xumay ni tudd sayyidatuna Aïcha moomu waaye tudd sayyiduna Talha tudd sayiduna zubayr tudd sayiduna muawiya nga xam ne ñett ñi ñoom ñëpp ci saxaaba yonente bi ridwanullahi alayhim la lañu bokkoon bu dee talxa ak zubayr ci fukk yi gën a rëy gën a màgg ci saxaaba yi lañ bokk muy fukk ñooñu yonente joxoon garantal leen warlul leen aljanna bégal leen ne aljana lañ jëm muawiya bindkatu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la woon waaye amirul muminin la woon bokk ci saxaaba yi ku may ni tudd ñeent ñii di joxe misaal ci ñoom ne doonte ñoom ñoo gën a bon ay ay xaj ñoo gën a bon ay mbaam xuux euh, taxul seen jëmm doon jëmm yoo xam ne yu sobe la booba ma ngay jàngal ne nit ki ak lu bon bon du jëmmam lu laab la ma ne Moussa Ñang bu fekkee ku ñàkk teggiin ku am mbañeel ku doon noon bu bir moom ngay wër dëgg-dëgg doy na la sëkk nag nga yem ci jëmm ji nga yem ci kii nga xam ne yow kilifa nga ko jàppe léeg-léeg yaa ngi koy teg place yàlla jàpp ne mu bokk na ci ñi gën a màgg ci kaw suuf te man nag maa ngi gëm ne képp koo xam ne alquran wax na lu leer nañ ñi ci nit tagg ko setal ko baaxal ko yow nga weddi loola bonal ko sa dëgg-dëgg mënoo doon nit ku baax ak loo mën a def ci kaw suuf rek dañuy jàpp ne am na ay yéefér yu jëf jëf ju ni toll wala jëf ju ni gën a rëy mën nañ leen koo nawe nag mën nañ leen koo yéenee man nañ leen koo warmaale waaye mënuñoo doon nit ñu baax ci lislaam loolu moo doon suñuy kàddu te moom lañuy ñuy feddle ba léegi waaye ñu dolli woon te di feddliwaat ne saxaaba yonant bii rawat na al muhaajiruuna wal ansaar rawat na tànneef yooyu nga xam ne bu ñuy lim ñi gën a gën a màgg ci lislaam doo am fukk te tuddoo seeni tur rawatina sayidatuna Aïcha mii bokk waa kër yonent yàlla Muhammad bi yaayi way gëm yàlla yëpp ci yow alquran bu leer naññi képp ku leen di tudd di leen méngaleeg ay xaj di leen méngaleeg ay mbaam koox sa dëgg-dëgg yow yaay xaj bi waaye yow yaay mbaam koox mi képp ku gëm sa wax jooje na bàyyi xel ne moom mooy mooy mooy ba waaye mooy mbaam xoox ma amma yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak ay saabaam dëgg-dëgg sore nañoo xaj lool waaye sore nañoo mbaam xoox lool loolu lañ leeral léegi nag mbokk yi ci commentaire yi dañ ci dégg ñuy wax naan euh, muñ kuñ tooñ rawat na ñuy wax boroom xam-xam day day jéggaleeg day nangamat man alhamdulilah rabbil alamin maa ngi jéem a xam-xam waaye doonuma boroom xam-xam Euh, beneen bi suñu jëmm ku ñu ci tooñ jéggal nañ la te yàlla tax waaye suñu diine ku koy fooye danañ jëflante ak yow kem suñu kàttan ak koo mën a doon mbokk yi wax euh, wax ju ànd ak teg gi nag yu ni mel te dëgg-dëgg ñoom ci seen bopp dañuy nangu ne euh, seen xam-xam demewul noona man ak ñoom a yem dañoo xamut luy teggiin maanaam seenu ñàkk xam-xam moo tax xamuñ luy teggiin teggiin dëgg-dëgg Euh, kii yeyoo tàngal da koy jox muy màcc saa bu ko soxlaa waaye kii yeyoo ay mbéj na ab noppam di saxaar jamono juneen na na noppam di tàng jër di génne saxaar loolu mooy teggin loolu mooy xikma loolu mooy maandu maandu du mooy fekk kuy fooyee lislaam fekk kuy saaga saxaaba yi fekk kuy doyadal kilifay lislaam yi nga seetaan ko ci loola naan maandu maandu déedéet maandu mooy di wax dëgg te yàlla tax bu wax jotee nga wax bu noppi jotee nga noppi bu joxe tàngal jotee nga joxe tàngal waaye bu mbéj jotee nopp borom na soxaar na tàng jër na digg tartiran loolu mooy maandu ngóor si Moussa Niang ak ñi mel ni moom ci seen yi ñuy def moo xam ñi nëbbu seen bopp di wax ne dañuy laabire ak dañuy joxe xalaat waaye ku wax rek feeñ ak ñi nga xam ne ñoom wane nañ seen bopp ku ci mel ni chiites yi rafidi bi tudd Saïd Diallo Mouhamed Saïd Diallo donte nee na nañ nañ Saïd Abdallah waaye moom xam na man xam naa lu tax Mouhamed Saïd nañ ko fekk si ci li mu bëgg di wax Saïd Diallo moom mi fi jaar fan wax fi ay njuumte yu rëy rëy ci xilaafa Seydina Bakar bokk tuumaal saxaaba yi ba yonent bu wujjee boromam ñoom taluñ ko ña nga fële di xaccoo ak di wax ci mbiram ku koy wuutu loola di sos woo xam ne ñoom yàgg nañ koo sos mi ngi fees dal ci seen téere fees dal ci seen lan nañuy waxkat yàgg nañoo leeral it la xew waaye mu tuumaal Seydina Ali ne dañ koo forcé ngir mu jaayante ñun Seydina Ali niñ jàng xam ko ci taarix jàmbaar la ku gëm yàlla koo xam ne du ku ñuy forcé ba àdduna yi tukki di ko def la lu bëggul ab yéeféer ab jullit amul ci àdduna ku mën a forcer Seydina Ali ibn Abi Talib di ko def loolu mu bëggul rawat na loola di lu wuuteeg ndigalul yonent yàlla Muhammad di lu wuuteeg bëgg-bëgg yàlla subhaanahu wa taala loolu mustaxil la nit ku manqué nit ku xamadi rek mooy wax kàddu dañ koo forcer jëmee ci Seydina Ali waaye mooy wax eh, Seydina Ali yàlla ak yonent ñoo ko dégg nangam ñoo ko dénk nangam jii mu bàyyee ko ñeneen ngir ngir nangam ku mel noonu rek mooy wax ne Seydina Aliou day wax wala muy bind loo xam ne gëmut ko day wax rek ngir am lam bëgg loolu muy tuddee taqiya comme noonu mbokk mi waxee ko ci lettre boobu nga xam ne Seydina Aliou ko bind téere taarix yu bari indi ko lettre boobu nag ni ngeen ko xamee mbokk mi sosal na ci ay boroomi xam-xam waxal leen luñ waxu tudd seeni tur ak seeni téere nañoo wax nangam bañ demee ca téere ya ndegetoo lépp ak neen la ay sosi boppam la moo tax laajal nañ koo fukki yoon ak lu tegal yéenuwut xalaatu cee ñëwaat ndax xam na ne li wax dara doonu ca dëgg te jombale na boppam dellu gannaaw wax ne wax ne eh, la ma waxoon du dëgg samay sos la ñoom nag muy musaa Niang nii ak ku mel ni kii ak ñeneen ñi mel ni ñoom moo xam ñi fee nekk ñi jéem a nëbbu te mënuñ ko nañoo xam ne eh, dëgg-dëgg dañuy ay gone dañuy ay gone waaye dañoo waroon a laaj dañoo waroon a laaj seeni kilifa balaa ñuy essayé ak di génn li nañu laaj seeni kilifa am na ku tudd taaha sugg taaha sugg boroom xam-xam la ci boroom xam-xam yi chia yi yàgg naa wax ne man xamuma xamuma fii ci Sénégal mboolem boroom xam-xam yi chia yi may dégg ñuy wax wolof xamuma ku ci ëpp xam-xam taaha sugg moomu ku leen yàgg topp min na ko taasu bu nekkoon na ci groupe bi yenu ay bagaasam bëgg fee tabax tabaxu lënt gu rëy ne day jàngale lan mooy imaama di ko topp bu waxee xam-xam macha allah ñu ñaanal ko yàlla te di ko xaar fam ñu ne fa la jëm waaye yàlla dogal bi muy wax ci xisaat yonent yàlla aadama alayhi salaam yi alquran net li ci moom te suratul baqara ba ko yàlla waajale ne malaayka yi damay def ci suuf xalifa ak la ko malaayka yi tontu fa yàlla jaar ak ñoom ba ne am bi bi asnaayi haula sëriñ bi paaxaasu bu taxaw ci baatu haula bëgg a juumloo mbooleem ulamaawu ahli sunna wal rawat na mbooleem mufassirun ne nañ firee baat bi du noona arab moo ko nanguwul parce que du ishaara lu amul xel ay nit lay joxoñ bëgg a wax ne haawulaay googa mooy mooy a may ci imaama googu mu doon jàngale yàlla dogal ñu taxaw moom ci baat boobu dellu ci waxi arab yi waykat yu yàgg ya dellu ci alquran ci boppam barab yi fi baat bi ñëw di firi lii muy dàq ne mënta firi loola ak la yem ci doon jéem a teg waaye dellu ci ñi jàngale fànn ba dem ci ibnu malik ubbil ko buntu ba indil ko la borom téere ba ak ya yeneen téere yu ni mel wax mbir mi leer doonte doon na ko bañ ba wallahi lenn ci ay mbokkam ñoo ko laabir ne ko ay sëñ bi booy boo nga jéggi li te jàll ci leneen waaye lii moom lu leer la lu wér la foofa la sabaub lënt bi mu doon tabax foofu la martob dëgg dalee ci kawam lépp tasaaroo ci la buubee ay bagaasam dem ngóor si Moussa Niang Saïd ak ñi mel ni yéen laaj leen seeni sëriñ laaj leen seeni kilifa am na ku tudd taalibu yeloo taalibu yeloo ci groupe bu bokkewul ak bii dafa am ku laaj ndax ab saay-saay ab faasiq masalan ab naankat sàngara ab njaalookat ab sàcc mat na ilimaan mën naa jiite wala déet taalibu yeloo ñëw tontu ko ne ci al madahibul arbaa maanaam ngiiru imam malik ngiiru imam shafii ngiiru imam abu hanifa ngiiru imam ahmad ibnu hanbal ñoom daganal dañ loolu ab saay mat mat na ilimaan loolu dara nekkut ci waaye ci ñoom chia yi nag déedéet ilimaan moom day doon ku baax ku ñu tànn ab saay saay du mat ilimaan man maa ngi ci groupe bi di déglu lenn ca la fay jàll ci laa laaj taalib yoo loolu ne waaw lii nga wax moom luy firnde ji ana yenn téere nga ñuy delloo ñu man faa fekk wérlu lii nga wax xam nga lu mu tontu tontoom mooy nee na sayiduna xaalid ibnul walid sayfullahi almahlul jaasi yàlla jooju mu bocc woon ci kaw mboolem naafeq yeeg yéeféer yi ak lim liggéeyal lislaam nga xam ne ñi dul ay jullit tey gëstu taarix yittewoo daray lislaam xam nañ kan mooy Xaalid ibnu Walid kañ nañ ko kañin wu ne nañ ko njàmbaarteem ak taxawaayam ci lislaam ba lislaam yegg fi mu yegg tey taalibu yooloo ne ne kooku noonu jëmm ju baax jooju radiallahu anhu wa arda maanaam maanaam maanaam ab ab saay saay la woon ab faasiq la woon te dañ muy jiite ay xare di jiite julli comme matoon na ilimaan loolu mooy dalilam nee ci ci ci al arbaa nee nañ ab faasiq mat na ilimaan ñu taxaw moom ci anam goo xam ne la ca topp moom xam na ko ñam fa fekkoon xam nañ ko bu baax Moussa Niang Saïd Diallo ak mboolem ñi ànd ak yéen sirran aw alanan laaj leen seeni kilifa am na ku tudd Ibrahima Sakho Ibrahima Sakho nekkoon na ci daara gi waaye Ibrahima Sakho moomu euh, li fian yëpp gànnaayoo rek jàpp mooy seen gànnaay li gën a dafa waxoon bés loola ci daara ji ñu doon waxee taalibu yo loola ne ahlu sunna wal dafa am ñaari problème yoo xam ne mënuñ koo régler benn bi mooy rasiyatul xaniif benn bi mooy miraasu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen gisee ca jamono yooya ñu taxawee woon di jàngat di yaatal di xóotal di leeral ci masail yooyu ngir booba mbokk yi loolu moo leen defe woon ci sànni tàcc seeni lënt ngay dem ba ñaar yi nga xam ne moom lañ gën a gën a jàpp yaakaar ne dëgg-dëgg ci lañ mën a taqalee deru Seydina Abubakar Siddiq man cee taqal deru sayidna omar ibn alxataab man leen cee tilimal tuumaal leen ak naafeq tuumaal leen waru yonent yàlla muhammad ñaari mbir yooyee bu ci ne ñu def ci ay jàngat xóotal ci yaatal ci jàngat yoo xam ne fekk na fi ñu bari ñim fi fekkul ba léegi mu ngi ci dencukaay wax yi ku ko soxla woo man ko faa fekk ibrahima saaxo dafa wax ci miraas mi yonent bi sallallahu alayhi wasallam al imaamul ne boo demee ci saxeexul buxaari yi da koy fekk xadis bi moo tax lii waa ahlu sunna mënuñ ci dara mënuñu ci dara bokk ca Sofia mu ne sayidatuna Fatima nee na Abu Bakar pourquoi wa warisa Suleymaanu Daawuda yonent yàlla Suleymaan donn yonent yàlla Daawuda ba noppi nga ne yonent daa wax ne ab yonent duñ ko donn nee na sayidatuna sayidna Abu Bakar noppi amatul lu mu ca teg mu ne loolu Buxaari ko indi ah ñu ubbil ko Buxaari dem ak moom ci Buxaari minal alifi ilal yaa la mu wax ci loola wan ko duur yi nga xam ne duural na ko Buxaari ci kanam ay taalibam ba mu leer naññ fi moom tëj na bunt booba kon Moussa Niang euh, Saïd Diallo ak yéen ñi nga xam ne yéenay jéem li ngeen di gém waaye waaye laaj leen seeni kilifa ñu continuer mbokk yi Eh, ngóor si Moussa Niang Saïd wala Mouhamad Saïd Diallo laaj leen seeni kilifa seen sëriñ Sërif Mballo mi ngi fii ak ñun ci groupe bi li may wax nii mi ngi koy dégg bu baax a baax moom tabaarkàlla ñi gën a topp di gën a déglu samay wax ci la bokk yàlla na ko yàlla fay kuy wax ak man it dana ko yittewoo lool ndeysaan di ko topp bu baax baax waaye bu ko jaree yi dana dana la jël ci di la soññ di la xirtal ci kaw Souleymane Badiane dafa fekk nag ne nit la muy def di ko nëbb bu ko yàlla di weer yatihi min xaytu laa yaxtasib Chérif Mbaalo ci groupe bii la xëy bés ñëw ne Ousmane ibnu Affan saalisul xulafa radiallahu wa arda mooy ci njëkk soppi sunna si yonent yàlla Muhammad Chérif Mbaalo wax loolu te képp ku nekk ci groupe bi mu fekk la fi nga set ci naa fekk mën ngaa seede loolu Chérif Mbaalu ne Seydina Ousmane mooy ki njëkk soppi sunna si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu taxaw ak wax jooja ca saaga yaag xaste yaag tëkkoo yaag yooxu ya waaye defe naa ne waxtaan woowu bi fi jaaree ba jàll li ca topp ñëpp xam nañ ko Chérif Mbaalu jël seet bër fukki weer ak benn yoo xam ne kàddoom kenn déggatu ko ci groupe bi waaye nag ñu sant ko ndax waxtaan woowa moo ñu ubbiloon bunt ñu def loo xam ne mbokk yi ñoo ko tuddee silsila man wax naa leen ba tàyyi defuma silsila damay yëg ne war naa wax ci masala sàngam rek ñu wax silsilaat ñëw leeral mboolem chia yoo xam ne mboolem lënt yoo xam ne chia yi ak noonu lislaam yi du chia yi rek noonu lislaam yi yane ca biti di jam lislaam ak yenn way sàggan yii boole seen bopp ci ahlu na wal jamaa ba noppi di wax loola mboolem lënt guñ mën a jamee sayidna abou bakar ñu ñëw ca jógee ca ñëw ci sayidna omar continuer ba lañ bëggoon a indi ci bunt boobu ñu jeexaloon ko ci jàmm ak salaam kon mbokk yi da di laaj seeni kilifa balaa ngeen di dugg ci yenn yi satunya dulu ini seluruh jadi aneh kayak itu kayak itu itu biasanya kasih undur dari waktu buat kulur aku jadi tempat yang dijualnya no jadi sudah jabatan dan sudah sama kemudahan dan itu cukup menjual pulang ke tangga kau kena menjual di monta kaya gën a jege mbootaay yéen kon ñeenteel bi dinañ ko mën a am mais loolu de fond de dëgg loolu motul am parce que bu ñu ñëw dañuy étudier question yi même livre yi dana ñu wax dèjà su ñu fekk la am kon livre yi danañ ko war yor ko waruñu ko loolu amul ci yeneen bi moom yàlla daf ko may xam-xam moo xam ne le passé présent et le futur nan lay toogee ba nga xam ne 23 semaines année bi nga xam ne moom lay jaajëf ba mu daje ak yooyu mu xam ne kooku moo koy jàngal moo koy xamal kañ la Moussa gañe woon Firawn loolu xel dina ko nangu xel du nangu loolu li ci woon mooy imaamu Saafet alayhi salaam te moom doomu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na quarante mille francs par an malheur on ne gère pas mënuma ko wax bu baax yow que ku am ku am musiba kooku warul woor como lo resolvó démocratie en Solam ci kam xam bi amul kenn tig ngeen ko yéen ñëpp yéen a ko déggandoo xam naa nag bu demee ba kilifa gi dingal ko moom yaakaar naa ñeneen ñi dañ si ñëwaat naan ne loolu ñun loolu gëmuñu ko ala kulli xaal ờ, julit ñi ñoom ñëpp ñoo riwaaye ci seen téere yi ci ay asaanit yu wér ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana woor bésu tam xarit waaye eh, man ñu baax ñii ci réew mi ñoom ñépp ñoo ci dëppoo woon ba am ñu ci bind téere sax waaye Cheikh Ibrahima Ñas radiyallahu anhu wax na ci pour nga xam ne lii sunna yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bu sax dàkk loolu dem mbooleem jullit ñi ñoo ci dëppoo léegi nag balaa ñuy dugg ci téere ndax xadis bii ñii di xadis yii ñii di nga xadis yi moom xadis ya woor ashura bari na noonu la ñuy wax ne banu umayya ñoo créé xadis yooyu loolu moom dañ koy wax saraxatan ci kaw ñëpp am na si ñoo xam ne dem nañ sax bañ ne loolu sunna yahud la waagan billah te mu nekk ay xadis yu ci seen téere yi nga xam ne seeni borom xam dañ ko wéral di leeka ne duñ ko jëfee waaye wane nañ ne sunna su wér la tu tukkee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ali ibn abi talib ak seen imam boobu tudd muhammadul baqir di doomi Zeynal Abidin ak doomam bi tudd Jaafaru Sadiq bi nga xam ne moom lañ tuddee sax mazhab bi ne al mazhabul jaafariya kon mag ñi ci réew mi ñëpp kenn naatablewul seen bëgg yonent ak seen bëgg njabooti yonent bi sallallahu wa sallam amul kenn ku ci musa wax ne lii koor gi du kooru sunna ñu déglu cheikh cheikhul islam rahi ibrahima ñaas xam naa bi mun naa mu bañ set waaye la muy wax ci moom Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dina nettali lu bare bare bare loo xam ne li jullit ñëpp tamit bind nañ ko ci seen mooy que tamxarit yàlla daf ci fukki yonant mooy yonant yàlla nuuhum yonant yàlla aadama yonant yàlla ibrahim yonant yàlla moussa te xadis boobu xadis yooyu tamit mu ngi ci téere eh, suñu mbokk ci ay léegi eh, xadis yi nga xam ne Euh, suñu kilifa googu wax na ne xaddis yi loolu koor woor woor tamxarit amut ak ñoom niñ koy waxee ne ay ba banu umayya ñoo ñoo ko créé ngir rey nañ al Husayn alayhi salaam euh, tuddee ko feet nangam ak nangam léegi ndax loolu lu sax la ci seen téere yi ñu dugg ci seen xadiis yi laaj imma yi laaj boroom xam-xam yi ndax loolu lu wér la wala déet balaa ñuy yegg si ci Xumayni rahimahullah sëriñ bi ngeen dégg muy wax ci audio bi Cherif Ali Haydara defe naa bu ma moom mooy kilifa mooy njiitul chia yi nekk Sénégal mooy njiitul chia yi nekk senegal doonte am na ñu féttéerlu toppi waaye moom mooy seen kilifa bu ngeen dégloo waxam dafay dàq di weddi woor bésu tam xarit woor ashura te loolu di sunna su sax nag di lu wér lu bàyyeekoo ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye dégg ngeen ko moom nee na nee na lii banu umaya banu umaya ñoo ko sos ndeysaan doo xam ñàkk jàng ñàkk jàng maanaam day mel ni waxoon naa ko ci démb wala barki démb ñaari benn ci ñaari rek moo mën a yi dañoo jàngul xamuñu lii ñu nekk mooy lan xamuñu lu seeni kilifa jàngale walla bañ ko xamee dañ cee dëgg tànk nëbbu ko di wax laneen ak laneen xadis yi muy dàq naan banu umaya ko sos di tuumaal di sosal waa banu umaya xadis yi yaa koy fekk ci buxaar di ko fekk ci muslim ci téere jullit yu wér yëpp téere cheikh yi seen ay may jàngal leen ko woor bésu tam xarit nii ahlu sunnati wal jàngale ko noonu la ko seeni imaam jàngale ca la ñuy tuddee xadis ñoom ca la ñuy tuddee xadis di mbir yoo xam ne boo ci teg ci nattukaay bu baax bi ah mën ngaa gis la ne léegi sëriñ bu toll nii nga xam ne moom mooy kilifa gi bu fekkee xamul ne ay kilifaam dañoo jàngale lii mu ne banu umay ñoo ko sax waaw banu umay am nañ doole di bokk yi banu umayya mën nañoo saf ay xadis ñëw dugal ko téere jullit yi ba mu dem ca seen noon yi gën a rëy muy waa si ay dugal ko seeni téere ba mu fees loolu nu mu mën a demee xadis bii nag lu tax ma indi wax ji mooy lënt gi daf fee jaaroon bu ngeen fàttali ko mbokk mi Chérif Mballo ba tey ak euh, mbokkam mbokk moom nekkoon Iran te jàmbar lool maa ngi fàtti tur wi ak ñeneen ñu leen ci doon jàppale sax ñoo xam ne nee nañ bokkuñ ci chia yi dàq woor bisu tamxarit ak nim saxee ci sunna dàq ko yëpp ne loolu mbiri yahudi la ay tappale la ay sos la indi lënt goo xam ne xam nga lënt lu leen ko mayoon cheikh Serif Mballo euh, ak cheikh boobu nekkoon Iran ak ñi àndoon ak ñoom ci wax ji xam nga lu doon seen ngànnaay ci lënt googa dañoo jël ñaari xadis yu sore lool ñu doxoñ ko def ko benn buñ fekkee lu xew ci assanatul ula min al hijrati nabawiyati sallallahu alayhi wa xew-xew bu xew ci at mu njëkk ci gàddaayu yonent ñu boole ko beneen xew-xew bu xew ca at mu mujj ci gàddaayu yonent bi boolem te ñaar yëpp mu doon benn jotaay benn xew-xew léegi nag day yomb lool ñu wax wasa jax-jaxee jullit bi leen di déglu gëmloo ko ne lii du lu wér xam nga ni ñu ko defee léegi na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na madina gis na yahud yi di feetoo ko bàyyi xel bésu tam xarit mu laaj leen ñu ne ko bés bii ci la yàlla musal Moussa bés bii ci la yàlla labal Firawna Moussa da waroon ngir sant yooyu ne leen yoo leen gën a yee ci Moussa ànd ak li xaaju fii ci leeral yépp moom defoon nañ ko ci waxtaan yoo xam ne yu beru la waxoon nañ ne yonent bi laajul benn yahut laaju ku kuy laaj kuy laajte ngir xam lu mu xamul woon yonent yàlla Muhammad yahut yi jàngaluñ ko dara alquran ci boppam maanaam xëy na ku dul jàngkat ku dul jàngalekat yow yaa yaay am lënt foofu waaye jàngalekat yi dafa bokk ci uslu bu jàngale laaj laaj ki ngay jàngal ne tekk di ko déglu ngir bu tontoo nga mën koo jàngal la nga koy jàngal mu dugg ci moom te dootu ko fàtte loolu jàngalekat yëpp euh, xam nañu ko waaye asura yonentu daana ko woor màkk njëkk muy ñëw madina loolu leerloon nañ ko duñ fi xori li ma bëgg a leeral fii rek mooy xew-xew boobu nga xam ne lu boobu mooy ci at mu njëkk ci gàddaay bi léegi ca at mu mujj ma beneen xew-xew ci la yéen salaatu am ne bu ma fi déwén fekkee danaa woor juróom-ñeenteel bi muy taasuwaa yàlla dogal mu wuy ci boroomam léegi gaa ñi buñ jëlee li xewoon ci at mu njëkk moom la ñu booleeg la xew ci at mujj ma boole di ko benn ngir wan la ne kon xadis bi mënta wér ndax xel nangu ko naka lay fekkee yahud yi woor mu ba noppi di waxaat bu déwénee danaa beneen bés ba daal di faatu ci ci ci ci at mooma te am na madina fukki at muy lënt yoo xam ne yëpp la ca waroon ciy leeral yépp alhamdulilah rabbil alamin mbokk yi taxawoon nañ ci defoon nañ ko ba yaakaar naa ne yëpp gindeekoo nañ ci ndax mbokk mi Cheikh Baba Diaw ñu ngi koy doolee ñaanal suñu borom tawfiq bokk na ci ñu yéen woon lënt googu di ko jaay ak di ko tasaare di ko sotti ci xoli jullit ñi euh, démb wala barki démb bu ñu ko déggee fii nag mu mel ni dañ na ca loola ba set jël xadis bii mu doon dàq def ko tegtal ngir saxal lee muy bëgg a saxal ah dañ naan alhamdulilah tey ñaan suñu borom mu dolli ko dolli ñu tawfiq balaa may gën a guddal ñu jeexalee ci audio bi fas yéene sunu jotaayu ñaareel ngoon wala bu ko yàlla dogalee rek ñu ñëw ci mbind mi nas bi texte bi li boroom wax ci diggante xumayni rahimahullah ak alcheytan ar rajim waaye balaa loola ñu bàyyi ci ab laaj ñu bàyyi ci ab laaj boo xam ne moom lañuy ñuy jeexale laaj bi mooy xumay nii nii nga xam ne ci lañ fas yéene continuer bu ñëwee ci suñu ñaareelu jotaay fikk amul ne kilifa gu mag la xumay nii li may wax nag bu ma jugul mooy ma gane woon àdduna mille neuf cent deux te nekkoon njiit lu mag a mag ci Iran lu mu néew néew lu mat fukki at defe naa ba quatre-vingt-neuf ci la wuy ji boroomam te mel na ni soixante-dix-neuf la commencé woon kilifteefam di feeñ ca réew mooma dafa am laaj bi mooy dafa am benn saay-saay benn noonu yàlla bu bon Salman Rushdie ñu bari dégg nañ turam bindoon aaya seytaane ya tooñ lislaam ak jullit ñi te loola mu def nag du lu bees njëkkeewu ko mujjeewu ko ak a yàgg te dundu yonentu ba la waykat ya commencé woon wax ju bon ji rek oh, yëkkati nañ ko jëmee ci yonent yàlla Muhammad jëmee ko ci lislaam ginnaaw yonent bi loolu mësta dañ ba jant tey yéen a dégg ay caricature rek ay lu ne lu ne yéen koy dégg ay nit di ko jéem ñaawal lislaam ci ay photo wala ci am mbind waaye mel na ni mboolem ñu bind ñaawal islam nag bokk na ci ñi di gën a seet ci jamono yu mujj yi xam nga way juutee dañoo amoon xikma bëri na waykat yu wayoon yonent yàlla muhammad wax ci lislaam wax yu bona bon te seen wax jooja da da nga koy dégg dañ la koy jàngal téere waaye mënu cee jot ngir seen xikma amma Salman Rushdie nag dafa siiw lool daanaka turam dem ci noppi li ëpp ci jullit ñi waaw lu ko may loolu dafa mel ne xumay nii moo ko defal benn promotion moo ko publicité ci kanam àdduna yépp Salman Rushdie tool na tooñ na l'islam xumay nii génnee benn jaay ga fatwa ihdaar neenal deretu Salman Rushdie ku ko rey ku ku dagg bopp Salman Rushdie mu jox la nangam waaw damay laaj xumay nii moom moom mooy kan ndax moom dafa doonul ab jullit ba bu benn waay tooñee l'islam saboote yonent yàlla muhammad lu tax muy toog di xaar jullit bu ko ko rayal lu tee mu jóg ray moom rawatina li ëpp ci jullit ñi dañoo néew doole moom muy boroom doole njiiti réew yi jullit yu bari rawat na ñi tuddee seen bopp seen réew ne islaamiya lañ nga xam ne dañ dañ koy dañ koy askane l'islam xamuma maanaam ci moo ci ëpp doole waaw moom mi nga xam ne nag jullit ñi ku leen tooñ yàlla dénk la nguur dénk la kàttan ak doole joo xam ne amul beneen jullit bu ni bu bu bu bu am doole bi nga toll noonu lislaam baa nga ne xam nga fa mu nekk doo def benn pexe ngir jéem koo rey bu dee kuñ war a rey la defoo benn pexe ngir jéem koo jàpp bu dee kuñ war a jàpp la lu dul da toog sa néeg di génne sa xaalis ne ku ma ko rayal nangam te dëgg-dëgg jëf jooja lam jariñ mooy publicité Salman Rushdie fii wala aw turam ci àdduna lam jariñ mooy yëkkati Salman Rushdie tax noonu lislaam yëpp bàyyi ko xel teg ko ci sécurité bu wóor yëkkati ko muy dund dund bi gën a bakkane ba tey man damaa jàpp ne jullit bu gis ne tooñ nañ lislaam ka tooñ lislaam dafa yeyoo ñu rey ko waaye waaye yow jullit nga lu tax nga bëgg a toog di xaar say mbokki jullit ñu rayal la ko nga leen jox xaalis doo dem nga ray ko yow rawat na yow yaa ëpp doole yaa ëpp man-man américains yi biñ bëggee yongu xaasim suleymaan yi yàlla na ko yàlla yërëm waaye joxe nañ bind lu dee woon xubay nii def noona def ay pexeem yebal ay ndawam ñu jàpp nguur ga dagg baat ba lu dul publicité ko siiwal ko ci kanam adduna yépp te la ci gën a yéeme nag mooy Salman Rushdie ci aayaat seytaan yooyu waxut fa gën a bon waxut fa lu yées lii Xumayni moom wax Xumayni mii nga xam ne am ak waxam ci almahdi yul muntazar mooy yëkkati ko tek ko ci kaw yonente yàlla Muhammad teg ko ci kaw mboolem yu yee jiitu woon wane ne ñoom dañoo ñëwoon ngir taxawal xadaala ci àdduna waaye amuñu najaax lañ bëggoon mënuñ ko am kenn ko mën a am mooy almahdi kii yëkkati mahdiyam moo xam ne nee naay judd na lu ëpp junne at ma ngay fu kenn xamul bese yi ñëw mu mas a di ko yëkkati ci kaw yonent yàlla Muhammad di ko yëkkati ci kaw yonent yëpp boole nga ñemee tudd soxna si yonent bi tudd ay saxaabaam di tudd ay xajagi mbaam ko est-ce que su ndax wax na ca téeréem ba lu gën a bon lii Xumayni wax ci lislaam bu dee def na ko wala defu ko Salman Rushdie bu yeeyoo rey Xumayni am doole ji toll ni jim am lu dee moom mu ko wala mu def ay pexe jëm ko rey lu dul siiwal ko joxe aw turam wërale ko àdduna yépp kon ñu ngi taxaw foofu dellu ci yitte yi ba ñëwaat ak jàmm ñëw ci ñaareelu jotaay bi insha allah barakallahu fiina wa fiikum